बायदि go. Hallelujah. Yeah la

ginnaaw bu ñu nuyoo ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaanal ko sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba yéene ji mi yéene liggéeyal Serigne Touba sunu borom mottali yéene ji liggéey lépp ci barkeb Cheikhuna Ahmadul Khadim ginnaaw ba ñu ngi ñu ak siyaare ju baax yi nga xam ne mooy sëriñ seex Jëmb Fall di ko ñaanal moom ci kàttanu Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina sunu borom yàggal ko fi te dolli ak wéram ba yéene ji mu yéene liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall lépp mat ci jàmm ñu ngi ciy toftalit sunu kilifa gu baax ku tedd ki nga xam ne moom lañ bàyyi daaru xafoo muy sëñ Assane ñu koy ñu gën koo xam ci sëñ Assane Modou Maam moom mu nekkal ci sëñ Saliou Fall di kilifa jabootug maam Saliou Fall yëpp topp na moom it ñu koy siyaar bu baax te di ko ñaanal yéen a ci yéen liggéeyal maam Saliou Fall yàlla na suñu borom mottali di ñaanal yit mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi di ko liggéeyal Serigne Touba ndax kenn ku ci ne xam na ne màggal gi agsi na ci jàmm te kenn ku ci nekk da nga am noo ko war a waajalee. waaye nag ñun Baye Fall ñu am ñu ko baaxoo di waajale ci ndigal Serigne Touba ku fi nekkal Serigne Touba rek liggéey bi ñu ñuy jox muy mbalem Touba yàlla dogal nag lu ci bëree bari ñu am ay yéene ak i pas-pas yuñ ci daan taxawee muy ay bagages yoo xam ne dañ koy fàggu fee ci Ndakaaru ñu gën koo xam ci caaro yi nga xam ne mbokki taalibe yi ñooy am yéene yi bokk ci liggéey bi Serigne Touba bi ba yalla dimbali ñu bagage yi daan indi rado radoog fourchette ak ak xéti parlaag xéti gop ndax ren ji sax yalla dafa dogal comme dañoo tombanté nawet bi ñu nekk ci digg digg dëgg dëgg nawet boole nañ ci ay gop yu bare bare bare yo xamné dañ ko boole walé ci liggéey bi waye lool lepp dara warulu ko lu dabu ngeeramul Serigne Touba dara lu bëggug sëriñ bi di sàkku it sëriñ bi defal ñu taw ak i ngënal ak ak ci baatin baatu ci ñu ngi ñaanal daal mboolem ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi suñu borom dolli seen taw dolli seen xéewal dolli seen sutura ndax lim bi sax nag jëru ko ndax lu baax moom ku koy def yaa ko gën a xam waaye ñu ngi ñaan daal suñu borom dolli leen a taxawu dolli leen a dimbali dolli leen a suturaal eggale seen yéene ci yoon wi ba li ñuy yéene liggéeyal yoon wi rek yalla na ko sëñ Tuubaa moo barke Cheikhuna Ahmadul Khadim barke Cheikh ibrahim Fall Allah Allah